waroon mën a changer stratégie c'est-à-dire être dans dans dans une dynamique beaucoup plus positive quoi. beaucoup plus positive plus positive hmm. euh, mais tey jii en fait le problème mooy. da ngay wax tu kenn du ko dégg xam nga wax wax boo xam ne ah. yow di ngay dégg dafa dafa inaudible dafa metti aussi. wala ñi koy dégg mënuñu wala ñi koy dégg mënuñu ci dara wala ñu si ñi koy dégg dañ lay nga wax ba pare ñu gerte dem def la ñuy def. xam nga loolu itam neexul. dafa dafa dafa dafa métti quoi mais mais combien de fois lañ fi bëgg a. maintenant seen siège ñu xam nga yooyu problème la quoi. ñu changé stratégie da nga wax da nga wax benn dama si bëggoon dama si dellu si. mooy bi nga ne direction des élections su fekkee li mu def dañ ko ko defloo dañ ko ko sant xam nga administration c'est vrai principe hiérarchique sa supérieur hiérarchique lu mu la sant moom ngay def l'ordre tu dois exécuter l'ordre sauf. Mm-hmm. si l'ordre est manifestement te cet ordre la bul exécuter la décision de justice parce qu'on a introduit un une, euh, euh, un recours alors que ce recours n'est pas suspensif c'est un ordre manifestement illégal waa ji même suñ ko joxee ordre boobu waru ko exécuter mhm. waaw maintenant nag opposition bi xam nga opposition itam Sénégal xaw ma bon vous m'excuserez des termes que je utiliser mais ñoom tamit la ñuy tamante dëmm seen biir quoi. Mhm. bien sûr tey ji personne n'a confiance en personne. Ah, gis nga même Sonko. ñi ko jàppale ñi nekk yeewu askan bi kenn wuluwu sa morom. ñoom ñëpp yaakaar na ni tey jii ils veulent danser sur le cadavre de Sonko. parce que dañu bëgg ku nekk Sonko verser la euh, sa puissance xaw ma électorale en tout cas la sympathie électorale qu'il a que mu verser la ko. moo tax ñoom ñëpp bon ils font semblant oui mais Sonko dañ ko war a bàyyi mais tout en étant pas sincère loolu. yooyu la ñuy waxante quoi xamoo si dara. donc chacun est en train de jouer. tey jii son pour ñoom ku ci war a ku ci waxul rek moom. man tey ànd naag Sonko ànd naag Sonko mais bi je sais que li mu yor su ma ko joxalee mën naa nekk président de la dama naan wax mais Sonko war bàyyi mu nekk candidat. tout temps disant que nañ ko gën tëj bu mu dem. xam nga loolu mooy problème bi aussi quoi moo tax ñoom wóolante wutuñu seen biir. Mhm. moo tax tey pour ñoom une action concertée. Ah, ah. forte te ñoom pour mhm. ñoom une action concertée forte day métti te pour ñu distraire leen effectivement. day mhm.